asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuy nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yi ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV ah di leen bëggee waat nag bu baax a baax ah, bala ñoo nag ah, wax dëgg yàlla commencé li nga xamante ne moom mooy suñu waxtaan dafa am loo xamante ni moom moo fi am démb ñu koy jaale nag waa àdduna di ko jaale monde partout di jaale ñëpp muy ki nga xamante ne moom moo fi jóge démb muy suñu tonton Pape Diouf ñëpp nag xam nañ ne ah, wax dëgg yàlla kenn du nekkul koo xamante ni benn nitu ordinaire la ndax. Euh, su ma juumul euh, Basirou euh, nekkoon na fi ki nga xamante ne moom mooy président Marseille mu nekk nag koo xamante ni waxuma la sax mais Sénégal cër bi mu bi mu jox euh, Sénégal ak ni mu ñu doon défendre macha allah di ko ñaanal rek euh, fi mu tëdd dàqal ko fuuf fu mu jóge te am nañ ci yaakaar parce que seede yëpp benn la beneen bi tamit mooy kon la ñuy wax rek coronavirus mu nekk feebar boo xam te ni dafa lëmba àdduna li may wax nit ñi nelawatuñu nit ñi yandooratuñu lekkatuñu ndax feebar boobu noonu di ñaan yàlla feebar bu jóge fi ci barki Seydina Mohamed ndax ma ndax dëgg yàlla feebar ba mu fi duggee ba léegi mi ngi soog a ñu ngi ciy soog am dese te ñun ñëpp kenn ku nekk dafa doon wax wax dëgg yàlla comme que moor amagu fi mais nag bi moo nekk suñ premier cas di ñaan yàlla rek mu yem fi ah, di nuyu nag bu baax a baax tey ki ma fekk si muy champion boo xam te ni kenn du ko présenté kenn mu nekk koo xam te ni alab lébu muy ama neex nekk koo xam te ni su bëree mu neex su feccee mu neex ñu gëj koo gis nag mu bëree wax dëgg yàlla gars yëpp nam nañ ko euh, looloo tax nag tey ñu am contentement ànd ak équipe bu wasaare bi euh, ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy làmb ak année blanche yi mu def ci moom la walul am na ay combat yoo xamante ni ñu ngi koy dégg ci moom am na combat yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñi naan ama neex moom mooy delloo avance ñi naan ama neex moo bëggut a jox ñooñu chance loolu yëpp dinañ waxtaan ak euh, moom pour waxtaan bi gën a yaatu dañ koy bàyyi mu nuyoo nuyoo internet yi ñi nga xamante ni ñoo koy seetaan ñu li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi neex maa ngi nuyoo. waaw salaamaaleykum maa ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Mohamed sant sama ñaar waajur eh, di sant eh, sama mbokku lébu di wax bisimilah ñu commencé yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawféex waaw ñu ngi ñaan nag li nga xamante ne moo am si réew mi muy feebar bi ñuy wax coronavirus ñu ngi ñaan yàlla tegg ko si àddina bi ci barki alxuraan si barki Seydina Mohamed. ndax feebar bi doon na feebar boo xamante ni métti na sa activité yëpp da nga koy arrêté ngir feebar bi waaw boobu nag li ñu si man mooy ñaan sunu borom rek a man kenn mënul ñuy yoxal ji ñaan sunu boroom yàlla saafara ko mu dañ si barki Seydina Muhammad ñii nga xamante ni moo leen dal yàlla wëral cëri wëral lépp ba ku nekk nekkaat say activité waaw ah, beneen bi mooy ñu koy wax ñu ngi ñu ngi ñu ngi massawu Sénégal di massawu France di massawu àddina mm-hmm. suñu kilifa gii fi jóge muy Pape Diouf mm-hmm. jullit donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àddina waaw ah, ñëpp képp ko mu fekk yàlla yërëm la si bak Seydina Mohamed waaw loolu daal moom lañu amagul pour wax ko daal nuyoo bi am na solo ndax moom porteur de voix la il faut que tamit ndax moom day sensibiliser il faut que tamit moom mu dugg ci loolu ah, ama neex Pape Diouf xamoon nga ko non xaw ma ko nag. waaw xaw ma ko quoi franchement par si télé bi rek la koy gisee. Hmm. mais comme ni nga ko waxee rek seede yi démb maa ngi si TFM. Hmm. seede yi benn la. Hmm. te yaakaar naa ne doomu aadama moom. bu laaxoo su seede yi rafetee rek. yow jaam war naa am ñaaw njort war naa am njort bu baax. donc foofu lañ sukkandiku rek ñaanal ko en tant que jullit. mu jullitam waaw. en tant que jullit mu nekk benn parenthèse parce que tamit sportif nga te moom tamit ñëpp gis nañ ni ci sport lu doon yëngoo mhm. mën nañu wax à travers euh, partout dans le monde ñu bari si loolu lañ ko xamee ama neex euh, gëj nañ laa gis nga bëre mhm. ama neex daawul année balance ama neex mais ñu bari léegi day gunge mais ba lu ñëw ci loolu dañ ñuy euh, da ngay ñëwaat ci li nga xamte ni moom mooy sa parcours. Mhm. nga fàttali ko gars yi nga xam ni ñoom ñoo lay suivre sur Wassare Lamb. ñëwaat sa parcours. waaw maa ngi nuyu avant tout waa wasaare yéen temps yi moom da ngeen xew mais sant yàlla yàlla na yàlla yokk waaw làmba ji moom mhm. bon ku ne làmba mu ngi dox rek da wax lu la neex hmm, maa ngi mujjee bëre ah sama contrat booy bawal mhm. mais avant booy bawal waaw ama neex bëri naa fee Moussa Dioum sa dugg ci làmb waa sama dugg ci làmb moom ñëpp xam nañ ko wax naa ko waxati ko mhm. dugg ci làmb moom mooy mooy mooy mooy man dama loon dama loon dama loon dama loon dama loon dem géej fi ma la indi tey ah. sama culture la ah. sama cosaan la dama loon dem géej bàyyi géej nekk si làmb ji ba mm-hmm. tey yàlla dimbali ma ma mm-hmm. nekk si parcours bu baax di nuyu waa Tëngéej ah. encore une fois di nuyu samay mbokk di nuyu mm-hmm. mbëri Tëngéej yëpp di leen bëggee di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm mais booy bool daal laa mujj daan ñaari defet laa am bool moom mujj moom laa mujj a E làmba ji daaw waroon naa mën a bëre Mourou Anta. ama neex combat bi dafa yàqu. loolu yëpp dinañ ci ñëw. Mhm. wax nga ko léegi ñu gis ne parcours bi ngay expliqué dag ñu koo taxañ taxañee quoi parce que ñëpp xam nañ nag champion nga mais ama neex sa enfance tey fii nga ko defee ndax fii ñu nga indi tey. Mhm. mën nañoo wax ne yéen internautes yi ñuy seetaan ama neex fii la defee enfance am mën ngaa ñëwaat sa enfance. waaw fii fii laa école bi laa daan jàngee école bi nga jaakaarloo ni sama kër a ngi nii sama maam sama kër famille ama def naa fa lu ne fii ma toog nii sant yàlla tey bu ma demee ba ngay ko damay sant suñu borom bu baax def ma fi loo xamante lu ñaaw la wala lu nit loo xamante ni mooy loolu baax laa fi def maay sant yàlla bu baax san boo nekkee xale nag doo xam li nga mën a def lépp mais daal li ma la mën a wax daal màgg naa maa ngi sant yàlla bu baax li ma man daal mooy làmba ji doxul di ñaan yàlla yàlla defaraat làmb ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk làmb Alioune Sarr mm-hmm. di ko wax di ko di di ko wax na ko moom sunu papa la mais Awaneex bala ngaa prévenir suñu papa Alioune Sarr mm-hmm. xam nga yow Awaneex dañoo bëgg a cenc xam nga tax dañoo bëgg a cenc mooy tey yow Awaneex tey da nga fay def loo xam xamante mën nañoo wax ni yow yaa fi gën a néew defet mm-hmm. sa génération dëgg la mais mënuma si dara. waaw léegi yow comme damay na di maintien rek. mais da ngay entraîné ci di maintien nekk samay activité nekk samay business. ñaata combat nga def yow. def naa 19 combats. i 3 defet laa am. 19 combats doole mooma daan Ama Baldé guy gi. ay champion ay Ragros hmm. ay Moussa Dioum ay Boy Niang ay Boy Baol ñëpp daan naa leen. xam nga loolu yëpp dañ siy ñëw dañ ko def ay xaram gajaga ñoom daan na du ma toog fi ne di lim naa ñii. daan naa leen non tey du lim ama neex mais. comme que yow da nga ñoo taxañ ñoo da nga ñoo bëgg a taxañ taxañee. Mm-hmm. ma leen mm-hmm. ndax parce que aba neex. Mm-hmm. xam nga waxtaan bala moo neex tuuti day dégloo tuuti. parce que ñii ñii di la seetaan. ñoom ñoo la choisir. waaw comprendre nga kon ko comme que ñoom ñoo la choisir dañuy waxtaan ak ñoom li nga xamante ni ñoom moom lañ bëgg xam ci a neex. ama neexu nga ko am nga 19 combats. trois défaites nga am. tey bala ngaa ñëw sa combat yow say mbapat nu mu demee am ama neex toj na wala tojul. si waaw yow mbapat mbapat kañ toj naa ko mbapat kañ saay yàlla may na moon na ma si loo xamante nii mm-hmm. ah, daan naa mb ay mb ay mbëri mbëri mbëri mbëri Dakar yi daan naa leen lu bari ñu baree bari ba fan la woon hmm? fan la woon ay Issa Pouye sa bëri nañ mbapat Issa Pouye barke yàlla Issa ak ni mu mënee bëre. billaahi mais bu ne yaa daan mbapat. non moom daan mbapat. ah doo wax loolu kay. moom moo daan mbapat boobu maa samay xale laa sax. ay mbéy kay ay laay béy. Mm-hmm. ay ay ay kan ñu ñëpp daan mbapat naas ñëpp mbapat. Mhm. boobu la doon def yow. boobu maa dem géej. ok da nga doon dem géej entraîné bëri. mbapat waaw. Mhm. daanu ma sax entraîné yenn entraîné yi sax. kon mhm. léegi ni ñuy entraîné. mbapat daanu ko entraîné da nga daan dem géej buddi ay mbaal. mbapat am cëw leen. maa ngi nuyu en passant may ñaay am moo defaroon mbapat mi. xam Cëwleen leen hmm. jokkul fii daan am mbapatu formaan bi ok ay yéen tubaab jalaaw di hmm. yooyu yëpp daan fa bëre mbapat hmm. waaw da nga buy bëre wala da nga am maam buy bëre moom ma ko muy bëre moom à neuf ok moom dama juddu rek nekk si taatu géej bi barrage bi fii di rayante ku mën sa morom duma ta xale kon xale yi nañuy def nii rek wër nii si géej bi taxawaalu xama tooñ gis yëfi jàmbur saa lekk lekk nag lan laan jël. Mm. mais man moom daal ma sàcca moom <laughs> lekk moom sama yaay sax bu saa la jën ci sax lekk si néeg bi sax dinaa kës. Mm. ba jël ko. Mm-hmm. mais daanuñu sàcc moom. ndax mm-hmm. dañ juddu fekk suñuy waajur. Mm-hmm. doon ay waajur yu baax. xamuñu ay sàcc liggéey lañ xam. jox seen i njaboot. loolu lañ xam. am na ñu bëri dañ daan làqoti di bëre fekk na ci a neex. parce que non non non. ok non man damaa dëkk stade géej. gis nga uh-huh. laa dëkk. dama naan yeewu rek jàkkaarloo géej gi. ak jàkka penc mi. jàngi école lépp si géej gi la nekk. kër gi si géej gi la ne. école bi si géej gi la ne jàkk ji si géej gi la ne penc mi si géej gi la fi ñuy fréquenté si géej gi la ne. xamuñu leen lu lii. kon donc bëri nga xam te ne dañuy am difficulté. pour dugg ci làmb seen papa di bañ wala seen yaay di bañ fekku ci amaneex. non non non non man fekkuma si nag man moom fekkuma si man moom bi ma nekkee xale daan naa bëri ay mbapat di ñëw indi saako ceeb ay garu suukar. Mhm. mbapat di am si koñ bi fii ma commencé yëg commencé xam nga. Mhm. mooy loolu jaay mhm. taar. Mhm. fekk na yooyu amul woon chance. ok mais boo demee ba màgg nag. da nga doon dund succès quoi temps yooyu. waaw na ñëpp jaar nañ si. Uh-huh. léegi nag boo demee ba màgg nag ba dégg daal nag yow da ngay xam ne lii na quoi. ok fii la yem. yow nekkal nga dimbali doomu aadama yi boo ko amee. boo leen ko yéenee am ko. dimbali leen te yàlla tax. dala yokk rek. Uh-huh. waaw am na jàng école. non man jànguma école. ok ñetti at laa def école. ah ñetti at. nga def école. waaw kon jàng école. waaw mais par exemple kon da ngaa dugg génn rek. waaw yàggu ma. ban classe nante yi la mooy ban yow bu fekkee <laughs> classe nante nante mooy lan ah 3 ans da nga wax. waaw 3 ans te sixième sixième nga fi mooy CP. non 3 ans laa def école. 3 ok 3 ans nga def école. ok. dem nekk si géej gi. Mhm. na ma tax nga bàyyi nekk si mbappat mi nekk si camion yi. Mhm. nekk ba yàlla dimbali ma ni may dem di tukki di ñëw xam nga sant loolu yëpp ama neex dinañ ci ñëw dinaa ngi tukki instant bi kay macha mais mais ama neex mm. euh, sa ja bàyyi école lu ko kii. non bàyyi école géej bi moo ko bàyyi école yow dafa mel ni déggoo ma. ah géej gi moom moo tax mën na maa ngi maa ngi sant yàlla di tukki di ñëw. maanaam xaar day weesu moto. ok xew ma ko ngir dara quoi. mais bala ngaa ñëw ci tukki bi da nga nekk tey làmb moo tax ñu ràññee la ba ngay dem di voyager. waaw mais moom laa lay wax. bu ma nekkee jàngee école. bàyyi école. Mhm. nekk ci géej. Mhm. nekk si géej gi ak mbappam boole ka mm. ñu utal ma métier camion ma nekk si ba mokkal. ba am sama permis lourd. Mm. bàyyi ko nekk si làmba mm. damay développé. Mm-hmm. làmba lii la ma may. di mm-hmm. tukki di dem di ñëw. alhamdulilah àddina yàlla na yokk may lakk anglais. après non internaute kay lii moo tax ñu choisir leen maa ngi lakk français un peu. sama jàng école ñi jàng école toog si maa li ma xam xamuñu ko. ok. yàlla may na ma am xel tamit. maa ngi xelaat. ban année nga dugg xalaat doo nit. Mhm. dëgg la waa. loolu mhm. mhm. la demee. sa premier combat. Mm. yaakaar la woon ak ban année nga dugg ci làmb. non fàtte naa ko nag. sa premier combat. waaw fàtte naa ko. ban année nga dugg ci làmb. man est-ce que du dugguma ci làmb 2006 2006 2006 waaw 2006. boobu yàgg na moo ko tëggoon xaw xamatuma sax. ñaar lañ la fayoon. est que du 30 000 xaw ma 25 000. ma jox ko Papa Yada maa ngi koy en passage. nga jox ko Papa Yada. ndax lan. moom moo nu tàggat nun tey lu nu xam ginnaaw yàlla xam tamit Papa Yada moo ah Papa Yada bu mag waaw ah, xam si nu ñëpp moo ñu jàngal bëre moo moo ñu sa communication ndeysaan lépp moo nu ko jàngal 19 mhm. combats nga def mhm. mu nekk palmarès pour riche ndax ku ne 19 combats damaa daan 19 damay rampe di rampe di rampe ba am mhm. am 3 défaites xam nga loolu palmarès bu riche la ñu bari commencé yow sa ban combat commencé ràññee sa bopp sama combat Boy Niang. avant ngay bëreeg Boy Niang. bi mu bëree Boy Niang bi may amee combat Boy Niang. Ah. combat dafa amoon ampleur. mais avant ngay jël Boy Niang kan nga bëree loon. Xaadim euh, Gadiaga laa daan. ok. Paala moo ko maa ngi koy nuyu en passage. da ngaa bëri Xaadim Gadiaga. dama daan Xaadim Gadiaga rek. Mhm. non non astafurlah dama daan Xaadim Gadiaga. Mhm. ñu dugal ma si gala goson nga bi. usine doole. Mhm. foofu laa njëkk amee defet. ok léegi gala boobu nu demee woon. mool un. ah ah ah ma daan. Youssou la daan ma ma daan mool 1 daan Ndiassé. Mhm. génne am xaadim Ngadiaga. muy Kalaf. waaw muy Kalaf mhm, ma am. xaadim Ngadiaga ñaar lañ la di fayoon. 5 millions. 5 millions. ma am xaadim Ngadiaga. daan xaadim Ngadiaga am Pape Faye. grand combat daan ko. Mhm. am Boy Niang. ok kon yaa ngi Boy Niang lool. non bi ma ok da nga génn ci Kalaf bi ñaari combat laa tegle. ok xaadim Ngadiaga ak Pape laa boole daan. am Boy Niang boo ko Boy Niang mu ngi si parcours. mais avant Boy Niang mosul am defet boobu bi may bëreex moom. ngay bëreeg booy ñaa waaw ñëpp am a neex instant bi mhm. booy boo xamante ne booy bu fi ñëppoon a bàyyi. Mhm. la ama neex jël. am ñu parcours bu baax moom mu parcours bu baax am ñu bari ne ama neex sax gars yi ne ama neex xamul ku muy bëre parce que ñu bari sax am na ñu bari dañoo joxoon Boy Niang favori. waaw man xaw ma woon ki may bëreel. bu dee dëgg la moo neex yàlla. ok ma ko woon. ok ndax lan. noo xaw ma ko woon bari na coow nii. Mhm. mais man. daaw ko suivre quoi man nëfa man gëwuma yow. daaw ko suivre man la man géew bi rek moo ma intéressé. ok. après nag si laa commencé seetaan ay kii am ñu ne a kii boobu ngay bëreel dafa njafalaa dafa mën a bëre ma ne la daax a bëre daaxu maa a a moom dawloo papa yaa dana ma ngay def lii ngay teg tegal li boo tegee li boo ko demee boo ñëw si kawam du la yëg ma nax ko daan ko mm-hmm. mais champion la da nga koo nax kon xam ngeen da nga koo nax dama kaa nax bu ñëwaatoon tey ma nax ko bu gën a pire kan Boy Niang waaw ah. Boy Niang mi billaahi wallaahi talaay kon yow pare nga pour jox ko revanche mais ama neex da nga ñàkk ki ñaan de saay te ñi ma war a bëre mm-hmm. mbari na fii te du Boy mais tey booy ñaar yaa ngi wax si biir wax na man ma damay delloo avance. Ah. yàlla xam na ne bi ma dalee takk ngeen ma ba léegi. Mhm. barki yonenti yàlla Muhammad mosuma wax. Mhm. delloo avance ak diw. ba nga pare ci booy ñaar daan booy ñaar nga jël kan. Hmm, bi ma paree si booy ñaar defe naa bu ma juumul guy gi laa jël mu daan ma. ci combat boobu moom nag. ma jël sa combat ak guy gi. waaw ma jël. sa combat ak guy gi yow lu la daan. non naagu rek. parce que ak lan côté entraînement. non naagu si lépp naagu loo xalaat rek naa ko. parce que da nga yaakaaroon yaa mën guy gi. waaw te guy gi daan sempi. waaw rek. ma paree si guy gi après ma jël ragros. Mhm. daal boobu nag kii combat boobu amoon na coow de. ma jëlaat booy ñëw ak kii Ama Baldé daan ma. ma combat boobu nag dañ. ma dem mhm. pare si Ama Baldé def mhm. un an ana balaa. mais loolu it demal demal acca demal waaw. ma dem jëli booy euh, euh, ñu proposé ma booy Bawol. xam nga booy Bawol maa xam bokkuñu catégorie. Mhm. ndax ne bokk nañ catégorie. non bokkuñu catégorie. booy ñaa man ni ma bëreel kii bëreew la ko booy Bawol boolewu la ñooñu. dañ ma fay lu ko jar ma dem wàcc li ma na def ana balance. Mhm. ñu fay ma ay millions ma wàcc dem jëli ko. Mhm. xam na kii maa man ma bëre daan pour nekkaat sama yoon. léegi nag am na boo yoo xam ne ñu ngi may laaj nañ ñëw nañ ñëw. man pare naa du ma amul ay nii lébu nii de Hmm. man na ñëw ñu bëre. man néew ma fi ay laaxlaay dégg naa ko si benn interview. ñu kan la Moussa Ndoye waaw. Hmm. muy wax naan ama neex bu ñu ma ko proposé kërëb kërëb. ma hmm. jël. li nga doon boo ko bañee daa fekk nga gën see ñaaw man du ma gëm li ma gëm ba pare dem ba si ay nit di weddi. moom Moussa Ndoye lébu la. man alab lébu ni moom. bu may bëree booy bawal. ñen laaj ka naka combat bi loo si xam. mun a que le gañ. te moom mu doon ab lébu. moo tax ma ne moom du ab lébu ndax bu doonoon ab lébu wax jooju mu wax noonu du ko wax léegi laaj na ma. Mhm. na ñëw ñu bëre man pare naa. mais ma yaakaar yéen lébu yi da ngeen waxoon doon bëre seen biir. Oh, sa waay. loolu dafa am leneen lu nekk si biir moom naa la expliqué nii. ok. daf laaj nañ ko mu a moom pare na pour man. moom na ñëw. Momo Sarr Ndoye. waaw mais loolu combat boobu dina métti de. na ñëw ñu bëre. ñaari lébu. ñaari lébu comprendre moom. mais yéen lébu yi da ngeen a waxoon doon bëre si bëre seen biir soxna si mais sax xam nga ne soo bëree ak euh, Moussa Ndoye di nga mën a bëre ak ay rëg rëg yeneen ak yeneen de oh, déggoo li ma la wax de hmm. dafa am lu nekk si biir wala déggoo ma waaw léegi lan moo nekk si biir pour internet yi daa sit foofu laa yem non mais xam nga ama neex daal ah. astafurlaa moom wax na la bëgg a bëreel moom na ñëw ñu bëre pare naa wax na li muy wax hmm. pare naa hmm. pour ñu bëre pour ma promoteur CC mu wax sama manager mbay Diagne. Mm-hmm. pare naa pour ama neex benn bi mooy ñu gis ne sa combat ak Ama sànq yaa ngi doon off. Mm-hmm. ñu bari na Ama combat boobu noonu dafa weeroon ama neex loolu tax ñu bari sax xam ay lacumam ndax si lañ si lañ soog a découvrir am ñu naan ama neex doon doon nekk doon monte fit doon monte fit yaa ngi doon waaw ndax ngi doon gëm euh, jëw boobu yaa ngi koy dégg ñu ne ama neex day am am lu fit mais amul fit. loolu parce que nañ Ama sa combat ak moom. Mm-hmm. ama neex combat bi da koo daw da koo ñett. da koo lii non maanaam. Mhm. fit. ok xam xel ax naxaate du benn. ok. yéen da boole fit. Mhm. ax naxaate ax dama la bëgg a nax du benn. ok comme maa Ama Baldé. Mhm. li si war yëpp def naa ko. yàlla moo yor ndam may na ko ndam. mais ni da nga ba ci géew ba kii daw. waaw même ma la. combat bi dañ ma jox ay tettal. Ah. na ma bu abdu bi sifflé. da ngay ñaari yoon jox ma ay teetal loolu moo tax. ab bi siflee ma reculer ñaari yoon. defaraat sama ngemba waxaa coach bi ñu joxaan fàttali ma tetali ma mën a wax ñoom consigne bi ñu ma wax. staff bi mhm. loolu laa ñëwee mais bu ñu ma bàyyi naa sama xel rek. Mhm. ni ma def booy bawal. Mhm. xëy na peut-être mën naa mais léegi maax moom ay gaayen lañ. mbokk dafa feeñ. yàgg ama waaw mbokk dafa feeñ yax yaayam ak samay maam ñoo nekkoon wakaam. fu ma gaayen la damay woo. kon yéen ñaar daal woo na ma expliqué ñu waxtaan si lu bari. kon mooy loolu sama gaayen la ama ah, sama nit la sama gaayen la yàlla moo ñu boole rek ah. mais daal ma la mën a wax daal mooy làmba ji mm. daa cate gouvernement jàpp teg ci mm. loxoom balaa yàqu bu la bu mm. gën a métti rek nga def benn déclaration ne pare nga pour may booy sens waaw ñu bari na ama neex da koo wax mais nekkul lu mu gëm parce que xaalis ba mu bëgg ñu fay ko ko non non non non non non bàyyi ak bàyyi ma àggali mm-hmm. ko ko mënu koo am mm-hmm. parce que xam nga ñun moom man moom xam nga ma damay jaar ci digg ba mm-hmm. proposé na la jën kayre Diène Kairé waaw proposé nañ ma ko Diène Kairé maa mhm. moom bokkuñu sa catégorie boobu bu neexee bu dëgg rek mu neex yàlla fi ma jaar jaaraguñu fa ndax nga gaa maa leen mag déglu ma rek maa leen mag ñi ma bëreel bëriwuñu kasa bi may bëre bëriwuñu ko champion la nag mhm. mais dama ne la man bu may wàcc di jëli ay booy mhm. dañ may fay loo xamante ne jaral na ma ko man xam nga ne am na si droit man du ma dem jëli risque ba pare du ma si am dara kon jël risque la non pas risque quoi maanaam xam nga fa laay waxee. Mhm. maanaam ñoom ay xale lañ. man maa leen jiitu si làmba. Mhm. li ma def si làmba anaam na ñoom ñu ko. Mhm. fi ma toll si làmba niveau bi ñoom xëy na peut être defaguñu ko man foofu laay waxee. mais bu may wàccuwaat nag nekk si kaw di wàccuwaat di jëli. Ah. day fekk tamit li ka jar moo ko jar. du sama copain Zo. mu ngi ree rek du nuyu Papa Yada du nuyu ah. Cheikh Ibrahima Bari. Ah. maa ngi koy gërëm Bari. suma doomu nday suma xarit Bari impôt domaine. xam nga tey ñaanal fa mu nekkoon. gënal ko fa mu joge mm-hmm. Ibrahima Bari maa ngi koy ñaanal bu baax am ministre sport Matar Ba ak Mamboy Diawa ah. ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant dañ may jàppale di gërëm waa États-Unis maire Fat Sarr Modou Gueye Abdou Aziz di gërëm Mouhamed sama xarit sama doomu nday Mouhamed maa ngi koy gërëm bu baax ab baaj mais émission bi jeexul di nga gërëm damay gërëm rek damay ah. damay wax samay gars yi rek ah, di leen gërëm Aziz Dia New York City di gërëm sama gars yi di gërëm fëgala sama doomu nday ama neex ñëpp xam nañu États-Unis la jóge woon bu yàggul ñëpp xam ne instant bi ama neex États-Unis ak kon kon ndox lépp xam nag mais mais nag bu ñu kii xam nga instant bi émission bi non waxuñu la da ngay wër nationalité ah. internaute yi nag xam nga yéen yéen a ma laaj ama neex ba pare ama neex instant bi du ma bàyyi ma wax mais ama neex danga may ma wax tamit ñu wa ñu waxtaan ah? ah. ñu <laughs> waxtaan de damay bëgg waale sama ngeen yaroo lan ngeen yaroo lan dara nag wax àggale ñu wax yow di sama jabar bu baax jàllo jëri bon ama neex su ma la waxee après nga kii mais bu ma sol ko sol ko am neex. ma wax ma ko jox. waxal ak moom Prince jox ma combat ma bëree man pare naa de. pare nga yow Sa Thiès. ah gën a dee. Sa Thiès mais gis nga ko. waaw ma man doye man dama gëm loolu gars yi. mais gis nga ko gëmuma loolu de. ci état forme. waaw foo état forme ah, xam na lépp. dama wut gànnaar mais xam na ne kaala moo ko gën a. mais Sa dafa naturel ah. oh. Sa Thiès dafa naturel. entraînement lay def matin soir. di ant macha allah. Sa Thiès ay ko dugg ci moom xale bi nee na ne. mais ku la woon léegi léegi na la ama neex. yonent yi ak nodd gi deux heures gi eh yow ma xanaa li ma ma delloo avance. Ah. dafa may ma jël ko. yow kon booy yi da nga naan bara nga may sens booy mais dafa mel ni booy yi da nga leen di kenc mais yow say adversaire potentiel mooy ñi ngay wax. waaw mais xam nga boo toogee bëre ñi bëgg a bëreex yow doo leen dem jox loxo ñu bëreex yow. mais Diène Kairé moom nee na sax moom avance am. Mm. bu ko neexee liñ koy jox. Mm. mën naa jël. Mm. wàññi lépp jox leen ko. loolu nag yomb na. waaw mais loolu dañ koy wax nii mais loolu du am bu fekkoon ne li dañ koy wax nii. mën na ne. mais Diène mi ma xam. pare na pour def loolu de. yow acca dama la wax a papaam. Père Kairé. waaw. Ah. jël kasem doole ko ci nga bëreeg moom waaw a papaam. Mm-hmm. xaw ma mu jël kasem xaw ma mu jël mais daal lañ may fay lu ko jar ma bëre. Mm-hmm. lu ko jar te nit ku ne am nga droit nag. Mm-hmm. plein droit wax na yow lii moo la arrangé. dëgg la loolu moom n'est-ce pas loolu moom am nga ci droit. bëgg a bëri nag du tax ma naan petit. Mhm. mar naan du tax ma naan petit. Mhm. maa ngi nekk samay activité namuma dara maa ngi sant yàlla bu baax. Mhm. waaw dañ may fay ko jar ma bëre làmba ji gaa daa sooxe dëgg la mais nit ku nekk xam nga li nga yelloo xam nga li ngay jar. sa combat. booy buñ ma si proposé ma jël la jarul sax ay sentiment nii. loolu de wax dëgg yàlla leer na mais daal nañ ko fay. li nga xam te moom moo ko jar. waaw Mour ama neex combat boo xamante ni. depuis daaw Anta boo bëggee dëgg-dëgg sama combat moom waroon naa taxaw daaw. mais moom lañ ko fay arrangé wu ko man lañ ma fay arrangé wu ko. yow liñ la fay moo la arrangé wu ma man. Ah, moom tamit lañ ko fay. arrangé wu ko. ok te tamit doo fekk ñaari kuy yoo xamante ne bokkuñu mën a. nga bëgg leen a fay loo xamante ni maanaam. yaa ngi mu daan te bokk leen bana. no maanaam ñaari kuy yoo xamante ne bokkuñu mën a. Ah, mooy lan déggee. maanaam ñaari kuy yi. seen combat. Mhm. dafay doon combat boo xamante ne day neex. combat àdduna waaw loolu moo tax ma ne la ñaari kuy yoo xam ne bokkuñu mën a. Mhm. waaw foofu wax nga ko léegi comme que sa combat ak Modou Anta. Mhm. promoteur ba ka doon tax lam leen fay. am matul matul sax nee nga léegi matul léegi matul sax passe New York. kon donc loolu mooy wan ne carrément kon cachet bi ngeen di demandé ak cachet bi mu leen fay antuwul mais tey ba léegi tey ku la joxoon euh, promoteur bu la fekk see waxtaan ak yow jox la avance Modou Anta nga bëri moom. ah si pourquoi. man làmb moom laa am man aw ma leen loolu làmb. Mm-hmm. mais Modou Anta yow du sa xarit. non mosoo dem këram. Modou Anta mas ah. naa jaar këram nii rek nuyu ko. Mm-hmm. dem am ku mu benn grand ma seetu woon. Mm-hmm. jaar romb mu taxaw ma wàcc nuyu ko ma dem. boobu da ko doon jéem a natt wala. non non dafa <laughs> déggoo ma de daa am fu ma demoon. romb ko wàcc jullit la may jullit en tant que lutteur may lutteur. Ah. ma nuyu ko saafanteex moom dem. Mm. loolu kese ngeen ndax bu ma ko romboon tamit nii la koy waxee naan nii la ma rombee ñàkk kers xam nga balaa daa war a rafet mm-hmm. te sport bu boolewu warul taaxale dëgg la mm. sànq dégg nañ la Moussa am na lu wax si yow répondre nga ko te ñun dañoo déggoon que ni yéen ñi nga xam te ne yéen yéen yéen waa axlu lébu yi loolu laa ko mën a tuddee yéen lébu yi yéen doo leen bëri seen biir tey tey ama neex bàyyi ma njoon ak ama neex ñu mës a bari ndax ay mbokk lañ moom xale boo xam te ne instant bi dafay lëmbe àdduna. ka mooy lëmbe àdduna. Ah, sama frère la duñ bëre moo bàyyi ma njoon. Mhm. samay frère lañ. Mhm. samay frère lañ dañuy demalante. Mhm. te am na loo xamante ne man jarul moo ko bàyyi ma njoon bi muy bëree Modou maa doon takk ngeen maam si biir néegam maax moom kase yàlla mi ma tim xam na loolu. ndeysaan. kooku dama am si moom yërmande am si moom cofeel ni mu amee si man yërmande noonu la si moom ñoom ñu njoon. ok kenn gënu ko ci àddina. Mhm. tey boo léegi nii da ngay rey bay bëgg a baax la sama waay la Séeri Rose. Mhm. daa nopp jabar ji rek. ah macha allah de yaa ngi ni salaamaaleykum ngeen kii a jabar. Mhm. kon euh, ba euh, ama neex. Malick Niang. Malick Niang même la même chose ñu benn lañ. kon yéen daal ak lu lébu gi yow mel ni Moussa Ndoye daal. dafa mel ni da nga desee dégg. non xamal lan la sax may leerlu. moom dafa am lu am si wala déggoo ma waaw te moom lébu la. waaw moo tax ma ne la li tax maax moom ñu war a bëre moom mu taxaw laaj ma. na bu ñu ko proposé mu jël wax naa ay wax nii c'est-à-dire man tamit ma ko ma jël. mais est loolu du am lu muy jaxase. non jaxasewul dara sport la. que le meilleur gagne jéem. Hmm. waaw wax nga ko sànq. nga ne làmb instant bi doxatul. doxatul yaa ko wax. ah mais xoolal làmb ji. mais tax nga ne doxut. Eh, feebar bi moo am rek mu tax mu taxaw. mais avant feebar bi kañ la barka démb. Mhm. làmb ji kañ la ibbi woon ba léegi ñaata combat taxaw. ok ñaata combat taxaw heure bii ñun dinaan fekk ñun ñu tukki. Mhm. nekk ci préparation combat. Ah. ñeneen ak ñeneen tukki. Mhm. ñi mën la tukki toog préparer seen combat. kenn amu fi combat. ok kenn. saison bi gis nga saison bi. Ah. buñ ko arriéré wul. Ah. ñi joxe seen xaalis mbëri. buñ ko arriéré wul. kon duñ bëri ren. fët bi si kan la nekk. si kan la nekk ah. promoteur wala. non promoteur yi defuñu dara. promoteur bu ñu amoon xaalis dem tëgg làmba amuñu xaalis amuñu ay moyens. ok sponsor bu génnee. Ah. ñooñu ñooy financer promoteur yi dañu waxante dëgg. Mhm. état moo war a jàpp si làmb mhm. gaa defaral nañu stade bu rafet macha allah. Mhm. mais nag nit. duñ la may jabar ba pare nga bëgg ko bàyyi noonu da nga koy gunge yaa koy dundal yaa koy dëkkal yaa koy yër. Ah. noonu la ñu war a jàppale si euh, làmba ji. accompagné nu. gërëm am ministre sport Matar Ba li mu war a def yëpp def na ko c' est mhm. kenn du moom. Mhm. bëgg na sport bëgg na doomu aadama. Mhm. kon donc li war mooy ñu ñaan suñu borom rek la yàlla defal ñaan sponsor yi ñëw làmb mën a dox.